nan la mën a def ba réussir loolu. ah li mu mën a def nag xam nga du fii laay toog ci bi di ko wax. loolu moom xëy na bu ñu toogee. ok ah dinañ élaborer stratégie électorale. d' accord accord alors. Euh... tey président de la république ci conseil des ministre yaakaar naa ni peut-être soo ko gisul am na ci loo xam ni euh, wax na ko ci mooy sàkku na ci ministre de l' intérieur mu baral mbir mi jëm ci euh, waajal élection yi. ñu mm-hmm. jàpp date yi. c'est très bien ñu dem ci. Euh, wax na itam lu ministre de la justice. Mm-hmm. moom itam mu baral mbir yi. ñu daal di euh, dem ci wàllu jéggale ak fexe ba jàmm am. c'est loolu itam wax na ko euh, ci loolu noo ko gisee. je pense que loolu lu baax la. Mhm. mais daf ko yéex a def parce que mënoon na koo teel def bu ko teeloon a def trois morts yi ñu enregistré récemment du am. parce que bu abrogé loon décret bi doo am ay manifestation quatre morts maintenant parce qu'il y a un étudiant qui est décédé aujourd'hui mhm. donc quatre morts yooyu du am mhm. donc xam nga réew comme ni ko El Hadj Momar Samb di waxee dañ koy péncoo toog di waxtaan wàññiwul dara de temps en temps nga convoqué la classe politique ngeen toog waxtaan. man mooy ni mu ko defee bu mujjul bu yàggul. non. def na ko yàggul bu defee temps yëpp mais xam nga doo xaar ba ci càppaandaw ba nga di ko def. loolu le dialogue politique doit être permanent maanaam euh, dialogue politique ci réew mooy euh, indi jàmm ci réew. Mhm. te jàmm ci la lépp xaj. xam nga bilan président Macky Sall kenn du ko nattable bilan matériel bi ne. en terme de pont en terme de route bitumée en termes de route latéritique en termes d'écoles d'hôpitaux et cetera bilan bu yaatu la mais euh, boo euh, interroger yu bari dañ naan la liñ jàpp ci nit bari na tëj yi bari na et cetera et cetera et cetera mm-hmm. waxuma ne ñi jàpp defuñ dara je ne je ne dirai pas ça mm-hmm. donc léegi nag à la fin de son mandat mu xalaata ramener la paix c'est une bonne chose aussi parce que bon Euh, euh, élection la ñu jëm donc il faut que ñu dem ci élection yi euh, de façon apaisée ñoom ay élection yu apaisée. d'accord voilà alors loolu mooy li nga xam ni moom la demandé ministre de l'intérieur mais lu jëm ci wàllu pardon bi mu wax ak réconciliation nan nga déggee loolu est-ce que dafa jëm ci mbiru Ousmane Sonko mi su mbiru bassiru jommay fay wala ban yëg ban ban dégg-dégg nga am. ci man li ma gis mooy réconciliation pardon Bassirou Diomaye Faye keroog bi ñu accepté candidature am. la ñu waroon def ay pexe pour bàyyi ko mu def carte campagne électorale comme tous les autres candidats. nan ngay wax pexe. mais Bassirou Diomaye fay non li ngay wax pexe laa waa c'est le il est dans le coup du euh, sous le coup d'une inculpation. Mm donc dossier mu ngi ci juge d'instruction. waaw. procureur de la République. Mm-hmm. mënoon na gisante ak avocat Bassirou Diomaye Faye susciter demande de mise en liberté provisoire boo xam ne. sans ñu déglu ko. même bu ñu ko dégluwulee la loi n'a jamais dit qu'une personne inculpée non encore entendue dans le fond ne peut pas être mise en liberté provisoire. ak délit bu mu mën a doon. ak délit bu mu mënta doon bu wul mën a doon. mais waxuma waxuma. loolu laa wax crime mais ak bu mën lu mën a doon parce li ñuy wax ni crime a ngi ci aussi. mais li ñu wax yëpp mais ana ñi ñu bàyyi dañoo waxoon ne ñu jàpp ay terroristes lañu tey ñu ngi ci ils sont dans la nature. loolu la ñu donc <laughs> le pays est en danger bu fekkee ne a ay criminels lañ ñu bàyyi ay ay euh, xaw ma terroristes yoo xam ne leen jeté dans la nature comme ça tout le monde est en danger. d' accord alors donc donc maître su ma la déggee mooy pexe mooy euh, wax ñu ne wax le procureur loolu nga expliqué ah. waaw procureur de la république. waaw xam nga procureur de la république kan wax le procureur de euh, ministre de la justice. ministre de la justice xam nga président de premier ministre. Mm-hmm. premier ministre instruit garde Sceaux ministre de la justice mu instruit procureur de la république mu waxtaan ak avocat Bassirou Diomaye Faye c'est vite fait téléphone rek euh, maître passez me voir. si mais la. introduisez une mais c'est comme ça que ça se passe. mais c'est grave mais comment. mais mais c'est grave nañ d'accord. man mais c'est grave. c'est-à-dire exécutif bi président de la république. waaw noonu lay jëlee décision bi ci biir justice. waaw ah mais loolu laa la gisee. mais dafa ne non c'est de la valeur de la demande formulée par rapport aux faits qui sont reprochés à la personne poursuivie te nag jàmm loo ko jënde jar na ko loo ko jënde jar na ko xoolal euh, bul compliquer. non <laughs> man compliqué non compliqué lu ma ko def non gis nga. c'est comme ça que ça se passe les arrangements politiques là moom mooy régler lépp lépp ci àddina politique koy régler lépp loo gis ci àddina politique koy régler. politique yi homme politique yeeg femme politique waxtaan trouver ay solution loi d'amnistie si ñuy voté pour lan la pour effacer ay faits yu produits ruraux yoo xam ne perturbé woon na ordre public. mais biñ ko doon junj. waaw ci mbiru ay Ousmane Sonko ak yooyu amnistie bi déggoon nga ko lan nga ci xalaatoon loolu. biñ koy rumeur mais man wax naa ko ci émission wax naa ko. waaw mais s'il vous plaît. waaw biñ koy wax. waaw biñ koy wax di ko junj noonu. waaw loolu ci la ban ban xalaat. mais ànd naa ci am amnistie ànd naa ci ñu amnistier tous les faits la ñu nga xam ne moo dugal Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye Birame Souleye Diop ñoom ñëpp ñu baal leen ànd naa ci. ànd naa ci. pour la paix. qu'on calme le jeu. d'accord kon kon normalement euh, da nga nekk pour paix kon est-ce que nekk nga pour une élection inclusive. ah mais bu baax mais élection inclusive dafa passé. xam nga dialogue non non xam nga. non yow yaa jàpp ni dafa passé. non dafa weesu. gis nga conseil constitutionnel bi lii mu. waaw non non dama bëgg non non xam nga danga ni danga ni da ni jàmm. jàmm nga wax. waaw jàmm laa wax. Eh, loolu nga eh, wax waaw. mais dafa non boo nee jàmm. wax waaw. xam nga ni élection inclusive am na ñu jàpp ni mais loolu mooy jàmmi réew mi. Pape élection du leen loolu nga woowee élection inclusive ñu boolewaat ñëpp. waaw loolu passé na le temps n'est plus au dialogue. ou aux concertations politiciennes. élection yi le temps est à l'organisation des élec de l'élection présidentielle. élection yooyu ñuy wax loolu ay ay phrase la rek ak ay wax. dépassé nañ niveau boobu bu yàgg bañ ko war a def du tey bañ ko war def du tey nañu jàll ci élection yi euh, président Macky Sall génn par la par la grande porte waaw. waaw alors mais mais monsieur le ministre nga gis. par exemple ay ay candidats spoliés taxaw ku ci nekk wax argument bi nga wax sama clé lii sama sama liste lii. sama lii laa lële ñu gis ni am na dysfonctionnement bu am ci euh, ci ci parrainage yi euh, nga gis preuve bi ñu ne mbiru Soham euh, Rose Wardini plutôt nga gis par exemple ñu ne am na ñeneen ñoo xam ni. côté quitus fiscal am na ci difficulté parce que dégg naa ki nga xam ni mooy Malick Gakou wax ko que ni am na ay candidats yoo xam ni quituñu ak ak fisc bi te loolu yëpp nekk ci ci ci ci ci ci neuf pièces yi nga xam dañ leen koy laaj est-ce que jàppaloo ni loolu euh, lu ñu war a mën a xoolaat la. mais loolu dañ koy xoolaat léegi bañ ko waree xool du tey. ok bañ ko waree xool du tey weesu na c'est fini décision bi conseil constitutionnel jël fixer la liste des candidats kenn mënu ko modifier kenn mënu ko modifier te kenn waru ko modifier et je pense que président Macky Sall mu ngi ci tànku bañ a sax. jublu ci ay modification ki ma xamul organiser organisation pratique élection yi rek moo fi des maintenant bu ñu falee falewaat beneen président ba mu toog xëy na euh, constitution bi ak code électoral bi parrainage beeg yooyu yëpp mën nañu woote dialogue nag boo xam ne dañ koy saytu ku ne idée argument alors d'accord léegi monsieur le ministre est-ce que jàpp nga ni fii ak le fii ak le 2 avril élection présidentielle bu respecter normes yi xaj na fi. waaw dañ computer délai yi. dañuy euh, mane ne nañ computer délai yi maanaam ñu xool délai yi. tey la le 21 bu président de la république euh, jëlee euh, bu convoquer le corps électoral demain hein demain ouais. on sera le 22. waaw 22 février. alors dañ ne campagne électorale bi 21 jours lay lay durer. waaw. ñu tenir campagne électorale bi sur 21 jours. waaw hein avant le 20 mars ñu def premier tour. waaw bu ñu defee élection euh, avant le 20 mars premier tour 3-4 jours conseil constitutionnel PV yëpp daje ci euh, commission départementale yi ñu transféré ko conseil constitutionnel mën nañu liggéey ci ñetti fan. parce que léegi il y a plusieurs cours d'appel dans plusieurs. Euh, euh dans plusieurs régions du Sénégal. Mm-hmm. bu njëkk benn cour d'appel Dakar moo amoon léegi nag am na cour d'appel Saint-Louis am na cour d'appel Ziguinchor am na cour d'appel Tamba am na cour d'appel Kaolack am na cour d'appel yëpp dajale seen ay procès-verbaux transféré ko euh, conseil constitutionnel ñu statuer maintenant le problème qui va se poser est de savoir est-ce que. na égaleel égaleel li ngay wax ni dafa ma dafa intéressant pour ma euh, xam ni ngay ni ngay ni ngay tëggee. élection li may raisonner. donc dama ne donc ñu def premier tour bi supposons. le dimanche bi topp ci parce que euh, y a le 10 y a le 17 donc mun na élection yi mën na nekk le 17 mars. Mhm. bu fekkee ne président jël na décret demain bon bu jëlee euh, décret demain élection ñu def ko 17 mars. Mmh. alors mandat bi le avril lay jeex entre le 17 ak euh, le euh, 23 mars donc presque une semaine. conseil constitutionnel mën na ci examiner procès verbaux yi jógee ci commission départementale yi. ñu fixer deuxième tour bi dans les quinze jours qui suivent le premier tour. mais on va aller au-delà du 2 avril te mandat président de la République le 2 avril la jeex au-delà du 2 avril euh, président de la République nekkatul président donc le hic. maître wax loolu yow. waaw maa ko wax. nag lan la wax.